sociaux yi ba da leen di jaral sax ñuy summeeku comme ni yaramu di vidéo seen bopp di ko yónnee yeneen i jigéen affaire yooyu wàllu réseaux sociaux dafa nekk loo xam ne tey wax dëgg yàlla lu am ay aspect positif la am ay aspect négatif tey réew yu bëri tey dañu profité ci aspect positif yi tey pour développer seen réew waaye ab ab réew buñ leen yarul jeunesse bi bu buñ leen yarul buñ deful ci ñëw ay jikko yu baax malheureusement dañ koy jëfandikoo dañuy dem jël aspect négatif yi parce que aspect négatif yi jëfandikoo tey ci mooy dérive yi li ko waral rek ci éducation la peuple boo am éducation bu baax da ngay profité ci internet ci réseaux sociaux yi jël la ca baax mhm. waaye doo jël la ca bon ñu nag ñàkk éducation tey ñàkk yar njaboot gi moo tax ngay gis dérive yi ci xew tey dérive yooyu nag ñëpp koy naqarlu tey ci réseaux sociaux tey yaa ngi gis tey nit a ngi eh, yàq moroomu nitam mm. di ko weeje di wuññi suturaam te yooyu wax dëgg yàlla ab jullit war na ko moytu tey waroon nañu profité tey ci réseaux sociaux yi tey mën mën soqali suñu réew man defar suñuy jikko defar suñu penc taxawaay bi nga xamante ne ngeen taxaw ci pour réew mi pour pour jeunesse bi ban façon taxawaay. waaw suñu taxawaay ci jeunesse bi mooy sensibilisation rek di wax ak ñoom bañ a tàyyi di wax ak ñoom di ñaax parents yi aussi ñu góorgóorlu ci yaru xale yi parce que tamit ñoom nooy seen responsable noo leen fi indi xale nag cadeau bi nga ko mën a gën a jox bu baax mooy nga yar ko nga yar ko ci diine defar ay jikkoom defar comportement am loolu daal mooy li nga xam ne ñoo ngi koy yëpp incha allah. imam damay faral des fois ci mbedd mi mais ku des fois damay laaj ñu ne la mais du ko xam. des fois ma ne nit ki boo rukkooyee lan nga war a foofu des fois du ko xam man leen des fois booy ndogu boo jëlee tàndaram lan nga war a foofu des fois duñ ko sax xam xam nga diine man man Sénégal diine gi doon ko war a régler ci lan dimbali ni ñu xam seen farata parce que tey yaa ngi waar nit ki ci leneen te nit ki ay farataam li gën a élémentaire ci diine xamu ko nit ki nag boo ko bëggee dimbali nag da ngay xool li gën a élémentaire ngay xamal ko ko nit a ngi toog ci conférence a ngi toog ko nee faratay njàpp kuy julli te xamoo say farata kooku moom sa jaamu yàlla neen la kon booy julli war nga xam say faratay julli booy jàpp war nga xam say faratay jàpp sa njàpp war nga xam lu koy yàq mais li gën a élémentaire sax dañuy gis tey koo xam ne mi ngi ci néegu sëy am am njaboot te sangu farata mënu ko kon loolu problème la kon moo tax may ñaax ustaas yi ak waaraatekat yi nu gën a appesantiru ci wàllu fiq bi xamal li ngi seen diine xam leen naka la ñuy jaamoo yàlla loolu ci am solo la kon damay ñaax ndaw ñi nañu fonk liggéey nañuy dunde seen ñaq di góorgóorlu di daan seen ndax loolu benn xeeti jaamu yàlla la tey boo gisee ndeysaan damay souvent wax ni société sénégalaise dafa nekk société boo xam ne tey boo xoolee waajur yi dañu tooñ seen njaboot ci lan depuis terme boobu nuy génne fii naan tekki tekki mooy lan tekki boobu ban ko commencé véhiculer ba léegi amatuñu jàmm ndax tey moo waral tey xale boo xam ne tey dafa juddu nekk ci kër macha allah ay waajuram nekk ci noppam naan ko waaw sa morom yi tekki nanu xam nga loolu yaa ngi koy indil jafe-jafe kooku nit rek la boo nekkee ci noppam naan ko waaw sa mbokk sa sa xarit yaa ngi nii ci koñ bi tekki noonu yow tekki woo dara nangam nangam kooku après dafa naan man moyen bu mu mën amee naa ko def tey loolu moo waral xale yi di jël gaal gi jël gaal gi di ci ñàkk seen bakkan immigration clandestine ni ci dee bare na mu nekk mbir moo xam ne wax dëgg yàlla jéggi na dayoo li ciy faatu ci ay bakkanu xale kenn xamul nu mu toll kon loolu. affaire homosexualité pour mu dugg ci réew mi ak formation yi affaire benn exemple rek laa joxe tey dama ni tey gis nga xale bi boo ko poussé ci ni que noo amee baax na tekkil rek kooku tamit façon bu nekk la koy defee tey moo waral lu ne ñaawteef bu ne ñaawteef bu ne xale yi di ci dugg tey doo mën a lim sax waaye lépp loo xam ne ñaawteef la rek la cay dugal gune yi lu ci bëri mooy pression boo xam ne pression sociale la kon waajur yi nañu bàyyi di pression seen doom ci wàllu woowu naan ku tekkiwul Euh, dañ leen wan ni day ba dañ dem ba benn slogan bu ñuy doxal ci société sénégalaise mooy boo tekki wulee rek daanaka yow euh, boo amulee tekkiwoo woo dara ci penc mi xam nga loolu musiba la tey li ñuy fonke nit di ko nawee nit Sénégal mooy sa am-am euh, sa nga yor dara am am daraja am am xaalis am mm, célèbre wala si leen lay fonk mais boo yorulee kenn du la fonk te loolu nag société warul tëddee noonu kon loolu aussi donc si interpeller parents yi tamit nu gën a góorgóorlu ci wàllu woowu te éduquer seen njaboot tamit parce que Sénégal tey dafa manqué éducation dafa manqué civisme ak citoyenneté tey boo gisee tey mii ngay gis ci mbedd mi wax dëgg yàlla euh, euh, da ngay da ngay da da ngay rus sax faf ci circulation bi ci fànn yu nekk tey ci booxante bi ci bus yi ci terre bi démb li ci mujj rek gis nga euh, xam nga civisme dafa baax ci réew mooy yar nit ñi ci lépp loo xam ne ñoo ngi koy def rek nan ko def ànd ak yar ànd ak teggin fu nu war ran ñëpp rang gis nga doo dem ci pays tubaab yi ba gis ñuy booxante waaw doo ko gis mukk quoi pays tubaab boo ci dem tey bu dee train dangay xaar gis ñi ñi rang ba ñuy wàcc ñëpp wàcc ñiy yéeg su koy yéeg mais fii nag c'est le contraire yooyu yëpp nag civisme moo ko waral ñàkk civisme moo ko waral ak éducation kon nag éducation bi il faut parents yi tey insister ci bu baax a baax yar seen njaboot gis nga islam day wax mu ni éducation day nekk lu teel ci nit ki xale bu amee sept ans rek commencé ko teel yar teel ko yar bàyyi ko xel bu baax a baax bu ko defee xale boobu éducation boobu mën màggaaleeg moom xam nga éducation religieuse de base dafa am solo ci nit nit ki bu fekkee amul éducation de base wala dafa raté éducation de base boobu kooku mook bàyyi ma nooyam parfois nga gis ay comportement yoo xam ne ci benn bi da nga naan waa lii naka la nit mën a def fekk ne kooku baas ba la amul ci éducation gis nga nit ki bu amulee éducation waxtaan a imam ah kàddu yi am na solo lool dañ koy yemale fi ba yeneen jotaay rek ñu xoolaat yeneen imam tamit fas yéene waxtaan ak ñoom li nga xamante ne lu jëm si mbirum jeunesse yi jeunesse li nga xamante ne imam wax fii dañ ko fexee jël jëriñoo ko mooy li nga xamante mooy suñu njëriñ ëllëg tey ëllëg a ah, jërë ngeen jëf mbokk internet Actubuzz ba yeneen xibaar